ki mu dal ci kawam mooy Barthélémy Diaz maire de Dakar la ba pare nekk député assemblée nationale. mën na cee jaare perte euh, postu euh, mairie bi euh, du nekkati maire de Dakar te lool boo ko ñàkkee mairie de Dakar mu lay apporter sur le plan politique waxuñu moyen yi rek mais envergure nationale bi mu la war a jox. boo ko ñàkkee je pense que loolu su ci sa carrière politique dina ci di lu bari dina ci wàññeeku en plus tamit ñu ne la condamnation boobu ñu la ko defee Euh, dootoo mën a tey nekk électeur te dina difficile nga nekk éligible mais li ko dal daf ko dal ci contexte boo xam ne ni tamit ay soutien dafa bariwul ci moom nekkul ak jàmm ak salaam ak euh, yeewi askan wi surtout moom ak waa kër Ousmane Sonko amul jàmm ak salaam moom ak pouvoir bi donc contexte boobu dafay day xaw a difficile ci moom euh, loolu moo tax avenir politique dina dina.